ministère de la Santé et de l'Action euh, euh, euh, Merci beaucoup. Il s'agit donc d'une initiative dénommée projet HPV+. HPV+. C'est une initiative qui consiste à assurer la prévention du cancer du col de l'utérus chez les adolescentes âgées de 9 mois à 14 ans plus d'autres initiatives permettant d'améliorer la santé de l'adolescente, notamment autour de l'hygiène menstruelle, mais également on en profite pour faire le déparasitage. nous sommes avec euh, Monsieur le gouverneur de la région qui a été représenté par le préfet du département de Kaolac. Nous avons le représentant résident de l'UNICEF, mais également le maire de la commune et le président des associations notamment et les relais communautaires pour accompagner ce projet qui aura comme pratiquement point d'impact essentiel, le, la région de Kaolack, notamment au niveau du district sanitaire. Donc il s'agira donc de vacciner les adolescentes à partir de maintenant. Et vous savez que nous sommes pratiquement à la veille d'Octobre Rose. Et MEXA, c'est une initiative de vaccination où les adolescentes seront convoquées, seront, seront sur des rendez-vous, euh, prendront leur vaccin contre le virus du papillome humain qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. le lequel cancer, comme vous savez, est un fléau au Sénégal parce qu'assurant la mortalité euh, de la plupart des femmes, bien sûr, euh, euh, suite à ce fléau. Donc cette initiative majeure qui a donc euh, eu l'aval et l'accompagnement de l'État, c'est ce qui explique la présence de M. le gouverneur, représenté par le préfet du département, donc tous les services de l'État, mais également les élus locaux, les associations, les relais, les partenaires techniques, notamment l'UNICEF, qui est là également, et l'ensemble pour essayer d'accompagner nos populations euh, à côté des agents de santé pour assurer la vaccination de ces adolescentes, la sensibilisation des parents également, mais également de l'ensemble des parties prenantes et des relais pour essayer d'avoir des couvertures satisfaisantes autour de cette cible extrêmement importante, en sachant que se vacciner, c'est important, mais également respecter les rendez-vous, prendre les autres initiatives et continuer, pourquoi pas, à recruter davantage d'enfants qui entrent au fur et à mesure dans la cible à vacciner. Voilà donc euh, la quintessence de ce qui nous a réunis ce matin et Monsieur le préfet du département a, nous a fait l'honneur de venir, euh, compte tenu de l'importance de faire le lancement officiel de ce projet Euh, dans cette commune, mais également il y a le maire également qui est représenté avec euh, l'ensemble des élus locaux également, les associations euh, communautaires, certaines ONG, mais également il y a nos accompagnent, ceux qui nous accompagne de manière traditionnelle, notamment les partenaires techniques et financiers à la tête desquels se trouve ici l'UNICEF qui était représenté également par son représentant résident. Voilà donc ce que je pouvais échanger. L'accompagnement spécial d'abord, c'est de disponibiliser le vaccin. Le vaccin est disponible partout, dans tous les points de prestation. Ça, c'est grâce à l'État qui a donc acheté les vaccins. C'est des vaccins coûteux. Le Sénégal, je rappelle, est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à introduire ce vaccin euh, en 2018. Donc l'accompagnement de l'État est là, avec la disponibilité des vaccins, avec les autorités administratives qui sont là, mais également avec la collaboration multisectorielle, notamment c'est tous les services de l'État, mais au, premier de, au rang desquels se trouve l'éducation nationale. Parce que la cible 9, 9, euh, ans à 14 ans est une cible dont l'écrasante majorité se trouve dans les écoles. Il y a bien sûr des filles non scolarisées, mais elles également ciblées. Mais euh, il faut savoir que l'éducation nationale est également une partie prenante. Euh, les ministères de la femme, euh, etc., sont également la jeunesse, tout le monde est partie prenante pour ça. Donc, ce sont ces accompagnements dont nous avons besoin donc euh, déjà disponibles pour que ce projet soit une réussite et que cette vaccination soit un réflexe pour nos populations. D'abord, c'est parce que toutes les régions, c'est de l'équité au Sénégal, la vaccination, mais Kaolack est une région dynamique également. C'est une région région qui a toujours eu euh, comme de tradition, si vous euh, vous rappelez, vous appelez à vos souvenirs, la santé rurale. C'était C'est une région qui a une forte... Euh, Euh, mobilisation communautaire. Donc le réseau communautaire de la région de Kaolack est un réseau qui nous a attirés, ça un. Mais Kaolack, la maladie ne se pose pas en tant que tel de par son ampleur ou bien de, sa, euh, de par sa prévalence euh, au niveau de Kaolack d'une manière particulière. C'est uniquement lié à, au dynamisme des agents de santé, au réseau communautaire dans de Kaolack, mais également à l'accompagnement des autorités administratives qui ont accompagné et qui ont pu ficeler le projet en accompagnant les agents de santé qui fait que nous sommes venus au niveau de la région de Kaolack pour faire ce lancement qui bien sûr va servir d'exemple à toutes les autres régions et à tous les autres districts. En termes de chiffres, peut le premier le premier entre se discute la place entre le premier ou le deuxième cancer féminin. Euh, le cancer du sein, mais ça c'est le premier cancer et la première cause de mortalité pour cancer chez les femmes. C'est également un élément important à savoir entre bien sûr euh, euh, le premier cancer entre 15 et 49 ans. Donc important. Mais également, il que ce vaccin qui est administré aux, aux femmes ou cas, aux adolescentes, est responsable de près de 70% des cancers qui sont liés au, corps, au, au cancer du col de l'utérus. 70% des cancers du col de l'utérus sont liés pratiquement au, au virus donc contient des sérotypes qui permettent de lutter contre les sérotypes importants qui sont incriminés dans la survenue de ce cancer, notamment le sérotype le, euh, le, 16, euh, le 18, mais également le, également le sérotype le 16 le 18, et également le 11 et le pratiquement. Donc tout ça sont des sérotypes qui sont inclus dans ce vaccin et qui permettent de lutter contre pratiquement 70% des cancers Euh, chez les femmes ci wala pour mun koo euh, faagaagal mais surtout lu ci ëpp solo mooy vaccination vaccination bi nag boo gisee ñu commencé ko parce que euh, puisque cancer bi day jàpp jigéen ñi suñu commencé ba am at yu xaw a bëri ñu ne nañ commencé fagaru ci vaccination bi tàmbale ko xale bi su amee juróom-ñeenti at rek 9 ans ñu tàmbali léegi 9 ans ba 14 ans foofu la ñu gën a jàppale xale yi pour ñàkk leen su ñu amee juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent dañ leen a war a ñàkk nga xam ne nag xale yi ñu ngi ci école yi waaye mun nañu bañ a nekk ci école yi tamit ñoo ñëpp dañ leen di ñàkk di ñàkkee nag dañ koy ñàkk 6 mois après mooy maanaam juróom-benn weer après ñu tollanti ko ñu ko tollante xale bi moom mun nañu wax ne bu ci yàlla àndee kooku mun nañu wax ne que cancer bi yàlla mun na ko jàppale ba mu mun koo am mu bañ koo euh, am daal ñu jël projet boobu région yëpp dinañ am mais surtout Kaolack lañ ko jagleel parce que Kaolack mooy région bi nga xam ne autorité administrative yi ñu ngi ci jàpp mooy gis ngeen tey ak préfet ñoom ñëpp ñu ngi fi maanaam préfet du département moo ñëw def bi maire baa ngi fii maire de la ville mais également élus locaux yi ñu ngi fii mais également partenaire technique ñi nga xam ne ñu ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale mooy euh, UNICEF moom tamit mu ngi taxaw jàppale ñu ak bien sûr Euh, population bi ak agent de santé yi ñoom ñëpp ñu ngi fii pour que projet bi euh, xale yi ci ñàkku yi ñu mun ci sóobu bu baax a baax ak bien sûr parents yi mooy maanaam waajur yi ak association yi ñoom ñëpp ñu jàpp ci ba xale yi mun ci mun ci sóobu bu baax mais du vaccination kese vaccination bi dafa and ak leneen lépp li nga xam ne day gunge xale bu jigéen bi pour mu gën a xam yaramam parce que ku xam na ne xale bu jigéen demee ba am Euh, juróom-ñeenti at jëm fukki at ak ñeent dina am lu soppeeku ci yaramam gis mbaax ak leneen loolu yëpp dañ leen koy expliquer tamit jàppale leen ci projet boobu aussi dañ leen sax jox ay garabu saan loolu yëpp ci la bokk mooy maanaam ko wérgu yaram daal xale yi moo ñu tax a jóg loolu nag ministère de la santé moo taxoon mu ñëw fii tey euh, gouverneur yebal préfet ñëw pour lancement euh, campagne boobu pour xeex jàngoro gi nga xam ne waxoon naa ko léegi ci kàllaama nasaraan mooy cancer butitu njurukaay boobu cancer boobu mun nañu wax cancer moo gën a lëjal jigéen ñi diggante euh, maanaam euh, ku jigéen ki demee ba weesu ay commencé ay 40 ans jëm 50 ans jëm kaw donc cancer boobu moom ak cancer ween ñoo gën a ñoo gën a lëjal jigéen ñi mais puisque cancer euh, col bi moom butitu njurukaay bi yàlla def na ko moom am na vaccin donc moo tax ñu ñu jël cancer boobu di di nit ñi du tax nag parce que Kaolack moo ëpp lim koy am déedéet dañoo ñëw rek parce que Kaolack dañoo xam ne que ñooñu dañoo njax njaxlaf dañoo yàgg ci taxaw am ay réseau ay association yu dynamique autorité administrative aussi jàppale techniciens yi ba ñoom seen projet ñu nas ko ba mu taxaw yàlla def aussi euh, partenaire technique yi jàppale ñu euh, moo tax ñu ñëw fii ci région de Kaolack def lancement bi ñu defee lancement bi nag léegi euh, ñaan aussi nit ñi ni ñu taxawee tey